les femmes à dire non parce qu'il faut apprendre à dire non waaw loolu da jàng du lu ñëw rek nga nangu ko nit da ngay am capacité wax waaw am capacité wax déet da wax ci et sans complexe et ça il faut l'apprendre et pour avoir cette capacité de dire non il faut être très forte dans la tête et avoir une autonomie financière parce que ça un coût wax déet dafa cher tu prends un avocat c'est cher tu payes des tests d'ADN c'est cher sans compter les déplacements à n'en plus finir sans compter te yàlla daf ma may chance ma am sama rajo bopp mais su fekkoon dama loué temps d'antenne ñaata la ñaata la ma naroon dikkee wala ma jël page yu jàmbur bu siiw ñaata la ma naroon dikkee tout ça ça a un coût kon apprenez à être autonome vous les femmes qui me sont qui sont de me suivre apprenez à être autonome dafa nekk loo xam ne dafa am solo il faut autonome émission bi ñu koy def mais am na góor ñu bari dañoo ragal waaw góor ñu bëri dañoo ragal góor ñu bari bëgguñu sa problème bi réglé parce que ngeen ne ah la loi nous protège on fera en sorte que loi va protéger les enfants. On fera en sorte que ces enfants soient protégés de la naissance à leur majorité. am na ñu mun 27 ans am na ñu mun 35 ans am na ñu buñ durant toute leur vie parce que avoir pris la décision sage de fermer la bouche et de ne pas en parler est-ce que vous avez le droit de fermer la bouche ñi ma doon woo di ma ne buñ wax est-ce que am nañu droit woo ma ne ma buy wax Est-ce que moi le droit de me taire je pense que non j'ai pas le droit de me taire li ma def nii tey dama si dama soulagé li ma def nii tey dama kontaan parce que ñu bëri tey gis nañu seen bopp à travers Ndella Madior ñu bëri tey say góor gis nañu seen bopp à travers le prédateur sexuel Sada Kane et tant d'autres man Sada Kane laa xam prédateur sexuel seen naa tamit d'autres prédateurs sexuels qui utilisent l'état tëddee xale yi daf ay chantage promotion canapé arrêtez arrêtez arrêtez donc euh, Sada Kane y en a beaucoup y en a beaucoup au Sénégal y a beaucoup de Sada au Sénégal et c'est le président de la République Macky Sall qui doit prendre ce, euh, ce problème en main euh, pour la protection des enfants du Sénégal. Ça, c'est le minimum. sanni tous les dimanches, à partir de 13h désormais, dans les réseaux sociaux, en direct à la radio et à la télévision, su ko defee day nekk benn genre pas ndëpp collectif ou les gens pourront parler parce qu'il faut que les les femmes se lâchent il faut que ñuy wax léegi test d'ADN rek moo fi solution ku ma fi jàkkaarloo bu ma wax ma quoi que ce soit dinaa la mbeg mbég boo xam ne ba dina tukki dootoo ko fàtteti je suis là Ndella Madior pour défendre les enfants du Sénégal maa ngi xaar kenn koo xam ne dafay ñëw di ma wax quoi que ce soit su ma la mbagee laa wax dootoo jàkkaarloo ak Ndella Madior di ko wax xoma émission bi warloo ko def lan lan lan parce que je vous sens à distance Ces imbécilités-là et des gens imbéciles qui vont m'appeler pour quoi que ce soit, je vais leur casser la gueule. Est-ce que vous m'entendez? xale yii di ñëw dañ leen war a toppatoo correctement jur sànni moo fi dul amati Sénégal ñu jël kii di ñëw salaamaaleykum ñu ngi lay déglu ñu ngi lay déglu ñu ngi lay déglu bu baax. Ça va très bien vous avez la parole vous êtes en direct. d'accord merci beaucoup. Mhm. man de dama bëggoon dugg rek ci témoignage bi. ndeysaan te xam ni dal saama boobu. Mhm. man mii aw personne la dal. ndeysaan. Euh, di encouragé nag. di mhm. encouragé saama boobu. parce que méttiwul. yombul du moins. parce que doom bu juddu tey. màgg am âge yi. Mhm. naan jiw yaay sama papa mu naan la dinaa wax ak sa yaay. Mhm. dafa doon ko métti. Mhm. danga doon ci sëy naan naa ji ak sa papa doo xam looy wax. des fois da ngay rus sax da nga laa xam sa yaay. ndeysaan. parce que doo am looy wax. oh ndeysaan fais pas pleurer. day am kersaw. day am kersaw. toog dina nettali yenn yi. waaye bu sësee ba sës yow muy jigéen muy jigéen da ngay taxaw gëdëm ko. ne ma lii dëgg. ko lii dëgg. Mm-hmm. nga woo sa baay sa baay mm-hmm. li ma ko koy mujj wax démb si guddi la lii dafa mel ni sama gént sama lanc nga lokkate xam ñu koy waxee ci wolof. ndeysaan. ci guddi laa ko message mu mm-hmm. ma ni ko wax ma benn yoon bu dee yaay sama baay. ndeysaan ma ko bu dee doo sama baay nga wax ma ko. ndeysaan ma xam. ndeysaan. ndax yàgg naa dund sama baay j'ai vingt-huit ans maintenant. tiituma loolu ragaluma loolu parce que je suis une fille joviale. sama yaay yar na ma fi ma war a yaree moo mën góor. Mm-hmm. donc tey je je de tout cœur ak li nga xam ni yaa ngi ko laaj xale bu ndaw laa. Mm-hmm. waaye damaa am fula xam li ma bëgg. Mm-hmm. tey jigéen bu am góor boo xam ne reconnaître wul doomam na ko fee takk ndikam liggéey. parce que dama koy xoolee ni sama yaay yar naa am vingt-huit ans léegi sama papa mosuma jëndal xaw ma Amadou Baye. Amadou Yaay laa. Mhm. donc jigéen ñi am leen fit. waaw te xam ne lu yàlla neen la ragal yëpp yàlla la. bravo a ta maman. vraiment j'ai vingt-huit ans tey. oui wallaahi algérie. ndeysaan ak yàlla ma fekkee tabaski dëgg. ndeysaan sama papa mosuma jëndal fit. ndeysaan lépp sama yaay la. ndeysaan. donc tey su ma amee fit taxaw mais nag dangay dëgër mais loo dëgër dëgër xale ngay doon jigéen ngay doon dangay dëgg mhm. juste rek. am na mhm. amul sa papa.

salaamaaleykum. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. Ndéli Madior na nga def. maa ngi fi rek comment allez-vous. maa ngi lay ça va alhamdulilah maa ngi lay woowee depuis Maroc maa ngi suivre sa émission bi. waa ndeysaan. di ko rafetlu. di la wax ni j'ai vécu la même chose. j'ai vécu la même chose mon fils est né en 2005 ko déclaré presque. ba muy am ba muy am quatorze ans ba muy am treize ans lañ ko soog a oh. heureusement parce que maamam moo bañoon maamam moo. ndeysaan. ma maa ngi lay woo parce que dama am beneen combat ak sama ex jëkkër. Mhm. ak sama ex jëkkër. Euh, parce que depuis on a divorcé en 2014. 2017 mhm. ba tey il m'empêche de voir mon fils. c'est pas normal sous prétexte que moom milliardaire la. milliardaire la xam nga milliardaire kenn du dem moom tribunal tukki avocat lay jël te ko sa kaw ci diggu Sénégal. tu te rends compte. ci diggu Sénégal loolu du am. Mm-hmm. milliardaires yi ak personnalité publique yi dañ leen di dénoncer ba àdduna ñëpp xam seen vrai visage. Mm-hmm. donc yow lii nii gis naa ay commentaires yoo xam ne ay femmes nekk naan waaw lii dëgg la waa mm-hmm. sutura lii sutura amul. góor boo xam ne da nga am ak jigéen doom. da ko war a reconnaître. te muy dëgg. Sénégal ñoo gën a oyof sër. tamit dëgg parce que famille bu ne. famille boo dugg am na fa. pourtant mm-hmm. loolu si biir famille bi am na ay mbokk ay cousin ñu ko am donc li combat boo xam ne la am nga courage yu dénoncé. Mm-hmm. man aw ma woon courage yu dénoncé ñeneen ak ñeneen amuñu woon courage yu dénoncé ñu ngi ne pat. Mm-hmm. ñu bëree bëree bëri tey ñu ngi may envoyé message naan ma femme bi li mu def nii te man maa ngi nii yor sama doom kenn déclaré wu ma ko kenn déclaré wu ko mënu maa wax. donc yow ci arrivé Parce qu'on a vécu la même chose. Absolument. On a vécu la même chose. Absolument. Et jigéen ñi biir Sénégal ñu ngi vivre loo xam ne. Mhm. mënuñu koo wax kenn. Mhm. parce que boo demee tribunal xam nañ lu fa xew. daal métti ma ne leen sama doom a ngi nii maa ngi tukki ñëpp si ñoo war a gis sama doom ñu bañ ne déet donc la famille da yaakaar naa ne yéen a dégg man la Yacine Coulibaly ku ma xamul dégg na ma ku ma woo si xeex rek ma ma xeex la xeexu Madior Diouf bi dama see am wàll bu baax parce que j'ai vécu la sama problème mais des na beneen combat contre la famille Dia unité cinq Parcelles Assainies lii direct la dama koy wax ñëpp dégg ko mhm. unité cinq Parcelles Assainies ñu ngi téye sama doom ne du ma ko gis mhm. ban nit ku tukki ñibbi si ñëw war a gis doomam mm-hmm. ngeen ne non bu mm-hmm. gis doomam parce que yéen da am alal tribunal ngeen bëgg a dem mais dans tous les cas daal fii lu fi xew mooy góor ñi yàgg nañoo biiral jigéen sànni mm-hmm. te loolu dafa war a deñ xeex bi ngay xeex assemblée nationale xaw ma présidente nga bëgg a doon xaw ma xaw ma député nga bëgg a doon xaw ma rajo nga yor xaw ma loo bëgg a doon yée nga tey ay xol yu bari ndeysaan ndeysaan ci nekk yow kese mhm. xeex bi doo si nekk yow kese ñun ñëpp dinañ si jàpp ndax suñu xeex la man loolu rek laa amoon di wax waaw bu paasee lii nag insha allah dinañu déggante pour sama combat bi nga xam ne dama ko war a publier ba àdduna ñëpp dégg ko mhm. ba ñëpp xam ne la famille Dia siis ba la famille Dia bi nga xam ne moo dëkk Parcelles Assainies mhm. nekk virage sama doom nga ko téye depuis depuis deux mille quinze léegi oh. ma gis sama doom oh. deux mille quinze Mm-hmm. léegi nag mu des beneen combat pour sama beneen doom góor ñi lu leen neex la def Sénégal parce que amul loi boo xam ne da ngay jóg ñu fase la mm-hmm. da jóg ñu sa bagage mm-hmm. da ngay jóg ñu jël sa doom ku góor boo demee dem bi neexu ko pour yàq sa àdduna sa doom lay jël soit nga dellu si ñëw toog soit mu toroxal la loolu rek moo fi am pour lan nañu wax nañu wax donc man mii bu passé man dinaa la woo personnellement jox la ay yoo xam ne bu may def direct sa àdduna bi ñëpp di ma di nga def attention di nga def attention merci beaucoup merci voilà ndeysaan ndeysaan ndeysaan allo pare bu ndeysaan voilà mais bon wax na l'essentiel voilà wax na l'essentiel dafa bëggoon wax combat bi doo si wéet combat bi kay moom fu mu ne nii dafa ubbi bëtu ñëpp lii kenn du ko du ko arrêté ci benn émission tous les dimanches à partir de 13h maa leen ko promettre 13h nag ba 19h. man man dama ñeme lu métti tous les dimanches de 13h à 19h man ak yéen la foo munti nekk nag si àddina bi mun na nekk Kédougou mun a nekk États-Unis mun a nekk Japon mun a nekk Chine mun na nekk Saly mun na nekk Sacré-Cœur tous les dimanches je vous promets de 13h à 19h Diour Sane on va régler tous les problèmes sama WhatsApp joxe naa ko envoyé leen ma seeni contact ñu recenser xale yi. xale yi nga xam ne dañuy nekk si situation yi ñoom ñëpp billaahi dinaa ko réglé billaahi wallaahi tàllaahi dinañ ko réglé waaw billaahi Macky Sall su ko réglé ah, ma xam ne kon xolam dëgër na su ko réglé wulee man dee la maa jóg Diouf billaahi dinaa ko réglé à sa place ndax lii du dëgg du yoon Sénégal donc. Euh, voilà bon Sénégal lu mu bind moom c' est pas seulement Aïssatou Diop Fall kese mais Kodou Mohamed Cissé euh, seen Buzz cent pour cent cent pour cent Buzz am na encore beneen site boo xam ne ñëwoon na si wax dinaa ko retrouver su ko defee ñu xam ne sooy interviewé nit dafa am fooy yam bàyyi leen di ñëw di interviewé di di dugg si ay mbootu mboot te ay mboot yu gën a garaaw kan mooy seen bàyyi kan mooy seen ndey maa ko wax bu leen ma tax a daf siiseloo de damay siiseloo ba mu saf sàpp en privé mais bu leen ma yëngal kan mooy seen baay kan mooy seen ndey bàyyi leen di ñëw di interviewé te seen bàyyi xamu leen ko seen ndey xamu leen ko maa ko wax bu leen ma yëngal maa gën a garaaw Assane Diouf téeméeri yoon maa gën a garaaw siiseloo téeméeri yoon mais doo leen ko dégg mu ma wax ko si kaw centenaire bi laa juddoo kii si frotte si pic j'ai déposé les armes en matière d'insulte musuma saaga damay saaga en privé damay Assane Diouf ba mu sa sap gën ko wex dégager lépp lu lu ne si man mais en public je n'insulte pas mais en privé kii si France sipic ñun ñëpp ay saaga en privé kon bu leen ma yëngal moo jël kii nekk Allemagne la nekk xaw ma fu mu nekk